yaa fii sëriñ Touba dalal nga xel yi xam ne so bëggee da yàlla bëgg de wor nañu kon nan lay bëggal de de doy nañu yaa di sëtub soxna Aminata Lo xam ne ëllëg dina la rammuloo yaa fonki rakka di yóbbu waate màkka kër goo defar tabax fa jàkka ñoo ñaan sa fan wi gudd ñoo ñaan sa fan wi gudd ba képp ku ñëw ñoo ñaan say ba képp ku dox ba agsi daldi waaru ñoo ngi ñaan yàlla àggale yan yii nga ànd ko murit yi ak jullit yi ñoo ngi ñaan képp ku dégg woy wii mu yokk sa cofeel ci yoon wii amiina amiina nee leen amiina ci darajey bàyyi muslim may maymuna